Larado ci lëkkaloom ak collectif des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may seen émission àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñett jàpp ñeenti waxtu ci Afia FM 93 point 0 Fatou euh, dina ci dalal monsieur jibi Baldé bokk ci Rado ak benn membre de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées émission bu ñu mel mi ngi jokk euh, ci cadre projet d'autonomisation des femmes vivant avec un handicap ginnaaw ay plaidoyer formation ak i tamit sensibilisation euh, ci seen àq ak yelleef ngir ñu mën a appliquer loi d'orientation sociale RADDHO euh, ci lëkkaloom ak collectif des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may bile émission mën ngeen ci bokk bu ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 05 àllarba ji 29 mars 15 heures 16h euh, ci Afia FM 93 point 0 kuréel gi ñu fas yéene waxtaanee ci projet bi ñeel autonomisation des femmes euh, yi dund ak handicap euh, wàllum plaidoyer comme ni nga ko déggee plaidoyer formation ak sensibilisation jëm ci wàllu droits humains ak loi d'orientation sociale bi ñu fas yéene nag ànd ci waxtaan wi ak Djibril Balde di responsable départemental bu personne vulnérable ca RADDHO ak madame Koumba Ndiaye di euh, bokk ci euh, comité bi ëmb jigéen yi nekk ci fédération bi euh, jiit ëmb personnes yi dund ak handicap ñu fas yéene waxtaanee wax ponk yu yaatu Djibril maa ngi leen maa ngi leen di fay. soxna Koumba di di remercier bu baax a baax aussi. Afia Aïcha. yow moom kenn du la présenté ci kër gi sunu partenaire bu yàgg nga. Uh-huh. Uh, soxna Kumba maa ngi leen nii uh, Adja maa ngi lay fay bu baax di la siyaar di la baalu ak si uh-huh. koor gi. Uh-huh. di la baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal. di Jibril sama naataango bi aussi. Uh, ñu fas yéene waxtaanee nag projet bi eh, Jibril laata ñuy dugg nag ci li nga xam ne moo di waxtaan wi bëggoon nañ rek nga ñëw ci kuréel gi di RADDHO déjà balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moo di projet waaw jë jërëjëf donc RADDHO mooy euh, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme je que fii ci Sénégal euh, sous région bi ak Afrique euh, ñu bëri xam nañu lan mooy effectivement RADDHO kuréel la bi liggéey ci àq ak yelleefu doomu aadama donc particulièrement les personnes vulnérables donc man maay responsable département réfugiés yi maanaam mooy dawlaxu yi euh, déplacés internes yi et euh, les populations donc euh, vulnérables comme euh, les personnes en situation de de handicap. Mm. donc euh, bi c'est un appui bu ñu ambassade du Canada. Mm-hmm. soutenir pour ñu mën a jàppale effectivement les femmes. Mm. mais bi projet bi moom vraiment ci famille la. Mhm. donc day concerner euh, région euh, banlieue bu Dakar. Mhm. Euh, Ziguinchor Sédhiou ak ak Kolda. Mhm. projet wu un an la. donc comme ni nga ko waxee ci introduction bi. pour autonomiser maanaam en tout cas dooleel vraiment les femmes euh, en situation de de handicap. déjà jigéen déjà c'est des personnes vulnérables. nga euh, war ci boole encore euh, donc handicap boobu encore beneen euh, beneen métit la donc en tout cas loolu moo taxaw ñu liggéey ak ambassade du Canada ñu ñu donc tey ñu ngi soog a commencé suñu première activité mm. commencé nañu benn atelier fële ci mairie bu Pikine Pikine Nord mm. pour ñetti fan mm. xam na yeneen activité mais dinañ ci ñëwaat donc ci biir ci biir émission bi waaw ci waxtaan bi euh, soxna Kumba ma bàyyi la rek nga présenté kuréel gi nga jiite fédération moom xam naa kenn dootu ko waaye nga wax ñu rek comité bi ak soxna yi ci ne d'accord merci madame ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la siyaar di la jox sa wàcc wàccuwaay donc di wax ne rek fédération sénégalaise dafa ëmb fanweeri mbootaayu way ko ak lu teg nekk au niveau national mu am nag façon type de handicap bu nekk tout type de handicap confondu mu am ay silmaxa ay sourds-muets ay handicapé moteur ay non voyant ay ñi nga xamante ne sax ay trisomie lañ ay défaillance intellectuelle ñu ñëpp la fédération bi regroupé ci biir fédération bi ñu am ci benn commission mu tudd comité des femmes mais comité ba des femmes boobu mu am autonomie boppam am bureau am siège am am léppam di mener ay activités individuelles am ak personnel am pour renforcer capacité wu jigéen ñi nga xam ne ñoo dajaloo nekk benn comité des femmes ñu am nag ay union régionaux am ay union départementale am ay euh, euh, euh, kii fédéra non union régionale mm-hmm. ak ay fédération départementale ak ay association locale mm-hmm. ci Sénégal gépp nag mm-hmm. defe naa ne loolu am na solo baaxe ko auditeurs yi pour ñu xam Euh, ji bi tey bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moo di projet bi lan moo ko wundu carrément parce que ñu ngi wax autonomisation des femmes vivant avec un handicap autonomisation boobu ndax mën nga ñu ko euh, wax lan la wundu waaw euh, balaa may tontu ci question bi rek. Mhm. dama bëgg a tuuti ci gannaaw. pour wax ni en deux mille deux mille quinze. Mhm. amoon nañu. projet bu ñu doon euh, coordonné avec l'appui donc euh, de l'ambassade des États-Unis mhm. euh, mais boobu dafa xawoon global mais bu ñu demee sur le terrain on s'est rendu compte que effectivement gouvernement bi adopté na ay loi mhm. ay charte comme par exemple la loi d'orientation sociale mhm. mais en réalité kiiwul pas c'est pas vraiment effectif maanaam euh, jafe-jafe yi daal. Mhm. ñu ngi fi. Mhm. Euh, loolu moo taxoon daal vraiment ñu xool et puis comme ni ma ko waxee ci ci njëlbeen euh, jigéen ñi déjà jigéen dafa vulnérable. Mhm. waxatuma la nga boole ci benn handicap. loolu moo tax vraiment ñu cibler cette fois-ci nii vraiment les femmes ñu mun a renforcer seen i ay capacité renforcer seeni ay capacité ci. technique de plaidoyer mm-hmm. n'est-ce pas renforcer effectivement seen ay capacité ci les droits de l'homme mm-hmm. parce que euh, Sénégal dafa am ay obligations mm-hmm. am nay chartes yu mu signé sur le plan sur le plan international par conséquent il est tenu effectivement de les respecter les respecter mooy mettre leen effectivement en en œuvre donc euh, lu ñuy remarquer en tout cas sur le terrain am na lu bëri vraiment du des moo tax daal ñu lëkkaloo ak euh, femmes yi pour maintenant renforcer seen capacité ñu def benn plaidoyer parce que ñoom lu ñuy jànkonteel mm-hmm. lu lu jafe la ci kër yi mm-hmm. gis nañu discrimination mm-hmm. euh, les personnes en situation de handicap sont discriminées loolu je pense que ñëpp xam nañ ko euh, tey dangay xool kenn benn handicapé bu yoree euh, chaise roulantam bëgg a dem dox yi soxlam mu arrêté taxi ñu bañ ko jël parce que tout simplement waaw yooyu ay discrimination la yi nga xam ni <coughs> ci bus yi euh, euh, accessibilité bi mm-hmm. vraiment c'est pas c'est pas effectivement respecté pourtant loi d'orientation sociale bi yooyu yëpp wax na ko mm-hmm. maintenant mise en œuvre bi loolu ça cause effectivement un problème mm-hmm. moo tax daal ñu euh, tënk projet bi ni pour euh, liggéey ak femmes yi vraiment mener ce combat euh, à travers vraiment une sensibilisation comme lu ñu nekk di def tey nii après il y aura des causeries de proximité dina am aussi ay rencontre de plaidoyer auprès des des autorités suñu diri suñu njiit yi ak même les les parlementaires pour que effectivement loi d'orientation sociale lu mu wax vraiment ñu jëm ko mettre en œuvre mm. n'est-ce pas et partout effectivement au Sénégal même dans les villages les plus reculés beneen problème bi mooy que euh, les personnes en situation de handicap dañuy am ay jafe-jafe yu bëri mm-hmm. comme accès à l'éducation mm à la formation, formation la santé donc sama naatango je pense que dina mm-hmm. ci dina ci ñëwaat quoi voilà projet bi ci ñaata at yaa ngi wax ne yéen a ngi déroulé seen activité bu njëkk ci ñaata at ngeen ko. waaw ci ci ci benn at la. benn at la mais y' possibilité vraiment ñu renouveler ko mu nekk mu nekk mu nekk ñaari at. soxna Kumba tey jii jafe yi ngeen di dund lan la ci wàllu formation bi ak wàllu peut-être santé beeg yooyu est-ce que mën nga ñu ko énumérer. waaw d'accord donc damay remercier waa RADDHO de passage parce que ñoom ñi toog am initiative xalaat ne euh, combat personne handicapée yi dafa transversal te du ñoom kese ñoo ko war a porter ñoom tamit en tant que société civile ñu war a ñëw ànd ak ñun ci liggéey boobu ñu penser aux ba bind projet tënk ko ñëw ànd ak ci liggéey bi vraiment dañ leen ciy remercier donc mm. beneen bi mooy problématique bu personne handicapée yi euh, ba kii wax na ko léegi-léegi ci biir mooy nekk jigéen ba pare nekk waaye laa ko teg si parce que boo nekkee jigéen dañ lay catégoriser si les couche vulnérables mm. donc nga nekk personne handicapée ñu boole la ci les couches vulnérables kon loolu day nekk double vulnérabilité mm. donc ñoom ñu xalaat ne jigéen ñii kat seen vulnérabilité seen degré de vulnérabilité il faut ñu ànd ak ñoom gunge leen assister leen dunge mm. euh, leen ci seen ay programme ak ay projet ba mën a jot seen àq ak seen yelleef kon donc loolu ñu koy rafetlu jafe-jafe yi nga xamante ni femme handicapée yi dañ koy dund moom am na lu mu ci jot a léegi mais bu gën a bu gën a bu gën a fës bi gën a fës mooy communication ak accès à la santé hmm. communication su ma ko waxee mooy damay ñëw ci les sourds-muets hmm. imaginer nga nekk jigéen sourd nekk jigéen nekk sourd-muet hmm. nga nekk am borom kër war a dem hôpital poste de santé bi la gën a jege wala district de santé bi la gën a jege nga dem pour def sa visite prénatale nga egg amoo accueil bi nga bëgg parce que ki ñu fa teg pour mu recevoir la mm-hmm. amul notion wu langage des mm-hmm. kon mënoo interpréter ak moom munoo communiquer ak moom mm-hmm. ba keroog ngay egg ca ka nga xam ne moo yor mooy médecin bu mag ba wala mooy sage-femme euh, maîtresse sage-femme ba fa nekk yow suur bi toujours ci ay difficulté ngay nekk ci ay problème ngay nekk te boo duggee juste rek doo am ku la orienté foofu comme problème communication day ñëw nga ñëw ci wàllum handicapé moteur yi ki nga xamante ne dafa yor chaise la wala yéeg ci table bu toll nii war a def ay visite prénatalam bu paree war si accoucher war a def leneen ak leneen consultation sax pour nga yéeg si c'est tout un problème mm-hmm. waxuma laa nag nga nekk jigéen am loolu kon xam nga loolu jafe-jafe la bu kon structure yi jëlaale en compte personne yooyu am mobilité réduite parce que accès bi balaa ñu lay jël en compte mm-hmm. accès bi mu mm-hmm. facile parce que amoo accès pour dem foofu yow bi ngay jógee sa kër ba ni ngay eggee ci poste ba wala district bi da am problème bu fekkee ne da nga dëkk ci quartier yu mel ni ay Malika fi ma dëkk laa mën a wax Cité mm-hmm. Mm-hmm. dafa bëri suuf borom chaise roulante taximaan yi parfois duñu dugg mais imaginez peine bi ngay def pour egg ci taliba pour mën a jël taxi bu la yóbbu nga dem defi say visite mm-hmm. loolu problème la nga ñëw ci wàllum formation peut-être handicapés yu si bëri amuñu yenn niveau d'études yi formation rek moo leen doon mën a dimbali pour ñu mën a def seen ay activités yu ndaw petite et moyenne entreprise wala activité génératrice de revenu donc loolu su amee amoo formation professionnelle parce que li li ngay daj pour bind sa formation yóbbu ko fi nga xam ne fa nga ko war a yóbbu déposer ko pour ñu offrir la formation boobu sax ça pose problème pour accéder fa. Hmm. loolu tam problème la te yow amoo jàng bu sori parce que bu ñu fàttalikoo ay jamono ci ginnaaw ñun hmm. dañu am chance suñu ay waajur dugal ñu ñu am tuuti njàng sax au moins mais am na si ñoo xamante ne seen waajur bu mu leen juree rek dañ leen isolé ci benn néeg. Hmm. parce que kersa la ci biir famille bi wala gàcce la ci famille bi duñ ko nangoo génne ci biti pour ñu xam ne xale bi am na handicap bu ne ci moom wala ñu préféré dem sànni la ci àll ba ne kii nit ku bon la hmm. mais bi ñu rendre compte bokk ci organisation yu mel ni fédération bi di ci hmm. remercier suñu présidente de passage Ndeye Daga hmm. ñoom ñoo ñu xamal tàggat ñu gunge ñu ba ñu mën di sensibiliser yenn parent yi wan ne leen doomu handicapé du gàcce ci dëkk dafa am ay droit xale bi su juddoo war na am extrait de naissance ñu déclaré ko war na jàng war na egg fenn benn niveau boo xamante ne su jàng mënul continuer mu mën a bénéficier wu ci formation professionnelle mm-hmm. yooyu yëpp ay problème na yoo xamante ne mu ngi am ci ak ci femme handicapée yi mm-hmm. donc beneen chance bi soo duggee mooy wàllu emploi mm-hmm. tey jii man peut-être mun naa def benn sacrifice bi jàng dem université am samay diplôme am lépp mais pour ma ñëw ci benn société ñu jël ma discrimination bi day feeñ parce que kii day déposé ma déposé ñu favoriser kii nga xam ne dara dalu ko te man mi nga xam ne maa am laa ko def peine bi ma def ba retenir ba am samay diplôme obtenir samay diplôme duñ ma defal une discrimination positive mm-hmm. kon donc lu yooyu yëpp ay jafe-jafe la boo ñëwee ci albino si naka noonu mm-hmm. albino suñu dëkk dañ lay stigmatiser mm-hmm. nga dajeeg puune da ngay tifli mais boo dajee moom da ngay umu et nga nekk jigéen albinos boo tollee gis sa mbaax war a gis sa mbaax serviette hygiénique yi doo ko utiliser parce que boo ko defee dafa gaaw a joxe infection hmm. yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante jëluñu ko en hmm. nga ñëw ci santé dañu am problème nga ñëw ci éducation dañu am problème mais santé bi amoon na euh, carte égalité des chances loolu fan la mujje waa xam nga carte égalité des chance euh, day identifier personne handicapée bi hmm. ñu ne kii kat handicapé la boo wanee carte bi man su ma ñëwee déposé ko fii dañuy xam ne carte bi carte dafa mel ni comme di dentité bi rek soo ko tegee dañuy xam ne carte d'identité jibi moo nekk nii carte égalité bi noonu la mel mais carte égalité bi bu fekkente ne état dafa ne carte bi soo ko yóbboo ci district wala post ba la gën a jege soo demee dañu lay jël loolu amul loolu kon carte bi lu muy njëriñ carte bi am man gisuma ci njëriñ bu bëri gisuma ci njëriñ bu bëri parce que carte bi non seulement effectiful ba pare njëriñam bëriwul ndax boo ko jëlee man fenn rek laa xam ne carte bi xëy na am na fa njëriñ complément dossier booy déposer say dossier yi boo photocopier carte égalité bi mun nga ko ci boole. Mm-hmm. donc mais soo demee ci poste de santé ñun leader yi nekk à la base. Mm-hmm. nekk lu mel ni Pikine. Mm-hmm. day am poste yoo xam ne wala district yoo xam ne wala école yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñun suñu ñëwee mun nañ porter benn plaidoyer xale bi nga xam ne am na carte égalité. te UAM yóbbu ko mu jàngi école mun nañ wax ak école privée ne ko ah directeur xale bii de dafa toll ci dem école te mënagul dem école. lan mooy identifier ne handicapé la nga indi carte égalité bi ne mu mm-hmm. négociation wala ci mbaaxam mun na la jëlal xale bi te loolu nag ci école publique la waroon a gën a jekk malheureusement suñu école publique yi c' est pas accessible à tout le monde mm-hmm. et c' est pas adéquat à tous les enfants mm-hmm. parce que yi léegi niñ ko gisee ni ñu koy tabaxee mooy R plus xale bi nga xam ne day raam bu bëggee dem si kaw deuxième étage bëgg a jàngi danaan jaraluma ko yaay ji day préféré teg ko ci buntu kër gi mu tàllal loxoom kon dafa am jafe-jafe yoo xamante ne à la lay toppee. Mhm. dem ba nga nekk jigéen bu mat sëkk nekk sa biir kat mu topp la ba ngay doon mag suñ ko saafarawul. Mhm. donc jëf naa dinañ ñëw ci loi d'orientation bi parce que nag doo normalement yooyu yëpp jafe-jafe yëpp da ko doon jël en compte. Mhm. Euh, jibi ci wàllu euh, li nga xam ne moo di projet bi ba tey yéen yan façon type de formation ngeen di offrir femme waaw euh, type de formation ñu leen di offrir mooy. d'abord euh, technique de plaidoyer. <coughs> comme euh, kii euh, sama naataango ni nga ko waxee. Kumba mm-hmm. euh, le le le le le combat il faut que ñun ñëpp ñu bokk si ñoom la gën a concerné ñoom aussi il faut ñu am technique yi nga xam ne mën nañu dem di plaider auprès effectivement des euh, des autorités. Mm-hmm. boobu euh, am na aussi benn renforcement ci technique de communication mm. ak euh, euh, parce que day am ay causerie de proximité mm. n'est-ce pas donc ñëw ci benn gox boo en toute la population mm-hmm. les différentes couches ñu waxtaan ci problématique vraiment mm. handicap hormis cela Euh, di leen leen jàngal aussi mécanisme donc de protection des droits de l'homme au niveau international comme au niveau africain mm-hmm. waaw mu jëlee exemple au niveau africain ma euh, kuréel bu tudd la commission africaine des droits de l'homme et des peuples maanaam boobu mooy département union africaine buy saytu lépp li nga xam ni mooy ax ak yelleefu doomu aadama mm-hmm. de façon vraiment général donc euh, seen bureau mu ngi Banjul Donc, euh, ils euh, tous, les, tous les six mois. Mm. ay milliers d'organisations ñu jógee fépp ci Afrique dajaloo foofu vraiment pour waxtaan discuter des problèmes euh, couche bu nekk dina am ay groupe de travail ci réfugiés dina am groupe de travail ci handicapés yi ci prison yi ainsi de nag bu ñu toogee bind seen ay résolution mm-hmm. ñu koy jox ñu tuddee des commissaires commissaires yooyu ñoom ñooy jël donc ces résolution ñu dem auprès vraiment des chefs d'État pour wax leen il que seen dëkk lii mooy jafe-jafe lan ngeen ci xalaat pour ñu mën a saafara situation wu tel et donc avec euh, donc ci cadre formation bu ñuy def nii ak euh, euh, les personnes en situation de bu mécanisme yooyu dañ ci dañ ci bokk. Mm-hmm. parce que d'habitude euh, man euh, très souvent damay participer ci session commission africaine des droits de l'homme mm-hmm. mais généralement du ma fa gis vraiment ay association donc de personnes association de handicap yu jóge Sénégal. Mm-hmm. dina am yeneen ay Zimbabwe ay Uganda ñoom dañuy am seen ay association yu ñëw ba Gambie. malheureusement. fii Gambie ak Sénégal Gambie mi ngi biir Sénégal mais duñ fa gis effectivement association donc euh, sénégalaise yi donc loolu dama yaakaar ni lu am am am solo la vraiment pour toujours porter effectivement le plaidoyer pour vraiment wàññi jafe-jafe euh, les personne en situation de handicap je l'ai dit tout à l'heure c'est c'est c'est c'est vraiment difficile maanaam jigéen euh, dafa vulnérable nga boole ci handicap boole ci tout le temps ñu lay discriminer parfois au sein même de sa de ta de ta de ta propre famille euh, société bi je pense que yooyu dafa am solo pour vraiment ñu ciy waxtaanee essayer vraiment de trouver effectivement des solution mais jibi dogguma la. bu euh, ma la déglee nga dafa mel ni Sénégal respecté wuñu droits humains surtout ci personne vivant avec un handicap. waaw mais bien sûr moo tax je pense euh, ñu nekk fi comme ni ma la wax man li may wax ni inventé wu ma ko hmm? euh, bon pense que def naa tour du Sénégal euh, sànq waxoon naa la en 2015 on avait un projet sur les les personnes de en situation de handicap bu ambassade États-Unis financé woon dem naa bi ay Kédougou dans en profondeur. Casamance ay Sédhiou dans les villages les plus reculés mais da ngay xam ni effectivement c' est une situation bi nga xam ni c' est très compliqué et et fondamentalement les gens n'en parlent pas. te ci région yooyu si si région yi reculé yooyu sax si la si ñoom ñoo gën a conditions yooyu ñoo gën a mettre conditions yooyu effectivement ñu gën a ñu gën a compliqué euh, jox la exemple rek euh, dañuy am problème mu appareillage mm-hmm. je ci cadre mission mu loolu wax noonu on avait rencontré l'association des des personnes handicapées qui avaient sauté sur des mines antipersonnelles. Mm-hmm. mais ñun bu ñu la expliqué seen problème mais da ngay bëgg a jooy. Mm-hmm. et pourtant ñu ngi fii Sénégal. et y a une loi les protège. Mm-hmm. et je pense que loolu dafa dafa am solo. ñuy continuer di ci di ci wax. parce que on ne sait jamais man miy wax ak yoon nii mën naa génn auto firme ma sama tànk dal mais man je suis vraiment un, une personne en situation de handicap. Mm. On ne un on, on, on jamais. Je pense que ay nit des n'est-ce pas euh, Handicapé, c'est un être humain. Convention, euh, Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination. Mm. Il faut que vraiment que si nous autorité, si nous adoptons ay loi, mm. ñu jëm leen mettre effectivement en œuvre mm-hmm. n'est-ce pas et que le Sénégal ne se limite pas qu'à Dakar mm-hmm. ou bien à Ziguinchor mais en tout cas même les villages les plus reculés mm-hmm. les gens doivent effectivement prendre en compte ces personnes euh, vraiment euh, euh, defe naa ne loolu am na solo soxna Kumba ñu ngi wax sax ne bu ñu sukkandikoo ci yenn chiffres yu ANSD yi ñu ngi wax ne Euh, ñi nga xam ne prévalence su handicap au Sénégal mu ngi toll ci 5 virgule 9 euh, que nombre bi sax mu ngi xaw a toll ci cent mille jëm kaw euh, tey jii ngeen ngeen ngeen senti dañu bafoué seen droit mais est-ce que au sein de votre association aussi ñi am na ñoo xam ne ñu ngi dund handicap bi mais xam nañu réellement seen seen àq ak seen yelleef pour mën a xam ba ban moment lañ ko violé ou pas donc merci beaucoup euh, damay wax ne ANSD peut-être am na sax lu mu fàtte. Hmm. parce que ñun booy xool suñu cible ñooy cible boo xamante ne chaque jour que jëfee day yokk. Hmm. li tax ma ne day yokk mooy parce que les maladies handicapantes mu ngi fii lu mel ni diabète lu mel ni AVC loolu mënoo xëy journée. te hmm. enregistré woo ci registre euh, fële. nu mu tudd sax euh, post district wala post de santé wala hôpitaux yu mag yi te mm-hmm. enregistré ñu benn amputé diabète mm-hmm. wala accident de la rue mm-hmm. wala mu am attaque AVC moo tax ma ne ñun suñu organisation mooy organisation boo xam ne chaque jour ko jëfee day yokk moo tax mënuñu ko limiter mënoo xam ñaata la donc beneen bi mooy peut-être ñun li ñu am tey ba ñu mën ñu jox benn considération bi c'est grâce à nos organisations ma mooy fédération sénégalaise lu ci mel ni Yatma Fall lu ci mel ni Ndeye dàgg lu ci mel ni Banda Dieye ñoom ñoo xam ne ñoo nekk ay pionniers yoo xam ne ñoom ñoo suñu ay mentor yoo xam ne dañ daan porter combat aux personnes handicapées yi mm-hmm. avant que ñuy wax ay ay loi ay convention mm-hmm. ñoom ñoo ko doon porter pour que xale handicapé yooyu mën a dem jàngi xale handicapé yooyu mën a am ci lu ñu jàpp xale handicapé yooyu mën a wane seen leadership mm-hmm. donc ñoom dañu am liggéey bu am solo wan ñu ne ñu du ngeen ay handicapé mais ay acteurs ngeen da ngeen war a mm-hmm. contribuer ci seen développement wu réew mm-hmm. kon ñun suñu amee benn considération bi à travers nos familles à travers maanaam biti bi mbedd bi ak population bi ñoom dañ ci def liggéey bu ama am am solo parce que am na noo xamante ne ni ko doon comporté woon ñoom ñu toogee ko rek kenn duñu considéré bay wax ni sax lii xëy na àq la ak yelleefu way laago mm-hmm. wala déedéet kon donc ñoom dañu am ko dañu def liggéey bu am solo mm-hmm. ba ñun ñu mën ci jaar ñu mën ñu respecté mu ñu jox benn considération mm-hmm. euh, wa ci wàllu woowu ba tey sax bokk na tam facteur bi nga xam ne moo gën a sonal personne en situation de handicap yi mooy pauvreté euh, ba tax sax ñu bari bu ñu amul moyen dañu obligé dem di yalwaan est-ce que yéen tamit ñi ngeen sensibiliser leen pour ñu génn ci ci ci ci mbedd moom ñuy toog pour ñu mën a au moins amal seen activité yi bopp yoo xam ne mën na leen dimbali ñu yor seen njaboot. xam nga dafa am ñaari mbir yoo xamante ni kenn du ko jiiñ ku am mooy na ma nañ ma jéggal ci kàddu gi dama wor mooy dëmm ak lafañ fañ xam nga ku ñu koy jiiñ ku amul dara te personne handicapé yi loolu mooy lañ dal te majeure partie personne handicapé yi ñu ngi dëkk banlieue banlieue ñëpp xam nañ ne dortoiru personne handicapé yi la ku yalwaan suba ba ngoon ku yalwaan suba ba ngoon bu ngoon jotee Pikine ngay dem fanaani wala Géejawaay mhm. foofu mooy dortoiru personnes handicapées yi mhm. kon donc am na loo xamante ne du ci pauvreté bi mais ci comportement wu nit ki la parce que man su ma juree sama doom mu am ay ak ak ay yelleefam. Kumba dogguma la ñu jël kii auditeur bi après ñu continuer. d'accord asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax tur bi naka la ak foo ñu woowee. waaw maa ngi tudd El Hadj Sarr. El Hadj maa ngi président association bi kon lëkkaloo mais maa ngi nuyu ñi nekk foofu yëpp. Mhm, ñu ngi lay fay. parce que j'ai l'habitude may may dugg ci émission bi. foofu mhm, mhm. parce que chaque mardi bu daan am. avec euh, les handicapés là l'émission des handicapés là. waaw waaw waaw. waaw man je suis membre de la fédération des handicapés. et je suis même président de la commission d'organisation. ñooñu maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax vraiment seen seen liggéey rafet na parce que lii mooy tax ni que ñu continuer toujours di sensibiliser euh, le problème des handicaps au niveau national et international mais y a la fédération qui qui est là une nouvelle fédération. boo xam ne vraiment avec euh, à la tête euh, y a Moussa Diakhe ñoom yaat maa fi nekkoon ñu def liggéey bu rafet bon dem nañu tey jii Thiaré qui a été un bon élève de Yatma tey ji moo fa c'est-à-dire problème uh, handicapé yi moom defe naa ni que même ANSDS xaw ma mm-hmm. euh, li ñu wax noonu vraiment cinq cinq virgule neuf alors man sama association bi kon la glaucome rek on est on est on est plus de huit cent mille personnes parce que y a un million deux cent mille victimes du glaucome mm-hmm. te ñoo xam ne ils sont ils sont à la porte de l'handicap mm-hmm. huit cent mille ndax buloo comme léegi foo tourné Sénégal famille boo dugg au moins grande famille boo dugg am na père moo xam ne nee na euh, un problème de santé oculaire mm-hmm. xam boole ak yeneen yeneen feebar yu fi yu fi xam ne que c'est des maladies comme ni ñu ko waxee sànq mm-hmm. ba soxna ko ma ak yeneen ak bés bu ne nga dégg ko ak santé wala koo xam ne que dama dagg nañu tànk bi fële boobu mm-hmm. des problèmes diabétique xam nga donc euh, mais y a la loi d'orientation qui est là ça fait plus de douze ans que mu ngi fi table président mhm. ba léegi loi d'orientation douze ans mhm. am na yeneen loi yoo xam ne génn nañ fi bu yàgg bu yàgg bu yàgg bu yàgg ñu ngi fi mhm. Marrakech ñu ngi fi ak leneen ak leneen les droits de l'homme yooyu yëpp ñu ngi fi qui protège l'handicapé mais c'était état état wu Sénégal ba léegi euh, moo defee moo defee mais quand même euh, heureusement émergent ngi nii tey jii mënu ko muy euh, accueillir des handicapés mais ba léegi école bi dafa fees am na ñoo xam ne ay xale xale yoo xam ne ay silmax la tey jii ñu ngi ci mbedd bi bëgg nañu dugg école bi mais école bi dafa fees on ne pense pas que tey jii euh, yokk école boobu ba nga xam ne dina mën a accueillir d'autres handicapés boo demee Diourbel c'est la même chose boo demee Casamance c'est la même chose dans tout le Sénégal. am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi téye seen doom seen biir kër yi parce que ruus la génne xale bi loolu demee noonu ñooñu aussi il faut qu'on les sensibilise. mais l' état l' état doit doit aider les handicapés. parce que ñun ay nit lañu comme ñëpp tout le y a de grands intellectuels tey jii boo leen boo leen am ci benn émission mu leen doon dégg keroog xale yi nekk jaay. mais tubaab yi ñu lay laajal les grands intellectuels mënuñu ko. ah mais dañu am xel dañuy dañu mën a jàng ak des systèmes tey jii dañuy utiliser suñu ordinateur di utiliser suñu portable. te kenn duñu dimbali. mais yooyu dañ koy jàng. y a des élèves y a des entrepreneurs yoo xam ne que de des handicapés y a y a des élèves étudiants des handicapés diplômés mais tout un problème. c'est des choses yoo xam ne pour il faut que nit ñi aussi ñëw ci association yi vraiment. ñu militer dans les associations combat bi nekk benn quoi. tout à fait. ok madame allez merci. jërëjëf intervention bi am na solo. merci euh, au di ko jaajëfal bu baax di wax ne aussi ñeneen ñi mën nañu woote ci 88 628 05 05 soxna Kumba. donc euh, di remercier El Hadj Sarr que je connais très bien. mu nekk membre membre bu actif. donc mu yor organisation bu mag nag affilié ci biir fédération bi. muy les Glocop muy liggéey liggéey bu am solo foofu ci département Pikine ñu bokk ko. donc El di la jaajëfal bu baax si woote bi nga def di euh, félicité aussi Moussa Thiaré mi mu tudd léegi mu nekk nouveau président bi nga xam ne moom la fédération sénégalaise élu récemment yàggul dara donc mu wutu fa Yatma Fall ñu koy félicité di ko encouragé ci ah, liggéey bi ma wàcc na Moussa moo fa nekk donc di ko wax ne yàlla na yéen bi oyof suñu président la Moussa parce que il était le secrétaire général de la fédération mm. donc xam na liggéey bi te miin na ko mm. aussi mm. donc di wax ne rek comme ni mu ko waxee xale silmaxa yi sax tudd tudd ma leen woon te vraiment xale silmaxa yooyu tamit ñu ngi ci di ci souffrance boo xamante ne ci seen mm. wàllu éducation mm. parce que xale bi nga xamante ne du gis xam nga handicap bi gën a métti mooy bi nga xam ne doo gis mm. handicap bi nga xam ne doo gis moom maara détail boobu dafa métti macha allah donc te xale yooyu dañoo juddu judduwaale ak seen bët yu tëju xamuñu seen yaay nu mu mel xamuñu seen papa nu mu mel donc beneen bi may wax mooy bu njëkk dañ jàpp ne handicap feebar la feebar lañ ko jàppee woon Sénégal yëpp ne feebar la day faju dañu yóbbu hôpital ñun suñu yaay ñu yóbbu fu nekk di ñu yóbbu si maam yeeg fépp mais mënul wér ñu xool xam ne lii dafa fréquent mënul wér ñu ne kon nañ leen di utal ay aide di leen jàppale di indi ay aide social ay yére fii ay dàll fii ay meew ay suukar dañu demee ba xam ne nit ki mënoo kaa assister toujours di ko jox lu mu lekk wala lu mu naan mais personne handicapé ñoo jug ne ñoom nag ay doomu aadama nañ te dañuy laaj seen àq ak seen yelleef muy leur droit dañ si am dañoo am pour ñu delloo leen seen ak seen i yelleef mm-hmm. kon donc li ma doon wax sànq mooy ma ne ñun suñu yaay dañu am chance dugal ñu école ñu jàng mais tey xale yi nga xam ne mooy génération 2000 jëm kaw jigéen ñi ñooñu ñoo am chance parce que xam nga lan moo tax dañu toll ci approche droit moo tax ñoom ñu am chance mais ñun lu ñu daj xale yooyu duñu ko daj pour wax la ne rek problématique personne handicapée yi dafa transversal mm-hmm. te foo laal rek foofu day métti donc te ñun aussi ñu ngi continuer di sensibiliser suñu ay membre per mm-hmm. di leen wax ne leen lii yéen a ko moom lii seen droit la lii moomu leen ko lii la leen yoon may pour ngeen yem fi pour revenir juste par rapport ak jibi lu mu doon wax mm-hmm. parce que état dafa mun a ratifier ay convention di signer ay loi ñaata loi ñoo fi ne suñ la koy limal fii suba ba ngoon ay convention internationale mais problème bi mooy du ñu ko du ñu respecter application bi walla décret d'application pour ñu signer ko c'est tout un problème kon donc loolu moo am Sénégal ak personne handicapées yi. mais est-ce que parfois aussi du du ñuy politiser yenn action yi nga xam ne état bi mu ngi koy def bu jëm ci wàllu personne vivant avec un handicap parce que bu ñuy xool loi d'orientation bi à chaque fois dañ ko doon wax même carte égalité des chances bi ñu koy def. Euh, gisoon nañ tam tole bi mu amoon ak yëpp ñu ñëw ñu bëri foogoon ne carte yooyu mënoon na résoudre à moitié par exemple problématique bi mais apparemment li ñu la déggee nga wax nii carte yooyu amul njëriñ donc est-ce que parfois du ñu bëgg di politiser di wane ne état mu ngi def alors que au fond ñi koy dund xam nañ ne defaluñ leen dara. état si boppam dafa foogoon ne bu tegee carte yi saafara day am état si boppam dafa foogoone ne bu tegee carte yi bu génnee carte yi am programme carte égalité des chances jàngoro personnes handicapées yi day saafara. parce que si vol manque de volonté la. xam nga man amul suivi xam nga man mun naa d'accord directrice rajo bii. Mm-hmm. ñu ne ko ah yow kat sa société bi day ut ay animateur mais kenn ki na nekk personne handicapée soo amul volonté bi doo ko def. Mm-hmm. te xam nga Sénégal loolu la ñu manqué. dafa am ñoo xam ne dañu manqué volonté pour def. gis nga carte égalité des chances du luy saafara jàngoro personne handicapée bi. Mm-hmm. carte égalité des chances xëy na complément lay doon parce que man mënuma d'accord xëy na état def na lu rëy def na lu rëy le fait que mu xalaat loi. mais li li mu yàq moo ëpp lim def. Mm. li mu yàq mooy application bi moo des mënuñu voté loi 2010. Mm. nga mu nekk 10 10 décret nga signé si ñett 2010 ak léegi ñaata at la. ah léegi nga signé ñett décret ñett décret yooyu yàlla bi nga xamante ne mooy wax ci euh, carte égalité des chances. Mm. boobu ñëpp xam nañu. ak décret bi nga xamante ne mooy wax si. Euh, euh, réadaptation à base communautaire programme RBC. waaw ñu jël kii Kumba allo allo. waaw xam naa di ñàkk mu woote waat waaw réadaptation. réadaptation à base communautaire fukki nit nga boole leen 1 million ku nekk am 100000 wala fukki nit nga boole leen 500000 ku nekk am 50000 mais bu ñu ko jógee man su ma amee facture ndox wala courant damay dem fay ko. waaw du ma ko investir fenn. beneen bi beneen décret bi mooy li nga xamante ne mooy commission spécialisée sur le école spécialités. utiliser donc ñetti décret yooyu lañ fi signé ak leneen lan léegi nag ñun RADDHO dafa ñëw pour bi ñuy wax état teg groupe de pression wala groupe de plaidoyer ne état kat il nag ñu ne suñu décret d' application de la loi d' orientation ñu teg ko ci table bi génnee ko. Euh, euh, jibi jibri yéen ci loi d' orientation boobu depuis 2010 pratiquement booy xool bu dee ñetti décret lañ ci signé aussi. seen minime par rapport ak diis yi ñu ci doon xaar euh, yéen tey jii yenn jéego ngeen yaakaar ne boo leen ko tegee état bi dina réagir au moins. waaw. Euh, ak ci loi bi sax soo ci mënee ñëwaat. waaw euh, je pense Kumba Kumba Kumba wax na ko. il faut qu'il y ait une volonté politique. Mm-hmm. nit aussi <coughs> boo xam ne say obligation <coughs> nga bañ ko def. loolu la ñuy tuddee vraiment manque de volonté maintenant ñun de notre côté en tout cas on va continuer à mettre la pression on va continuer à sensibiliser vraiment pour que euh, décret d'application bi ñu mun ko mun a mun a effectif mm-hmm. euh, beneen affaire bi d'ailleurs je profite aussi pour remercier vraiment doyen El Hadj par rapport que contribution bi mais dama yaakaar ni effectivement nguur kese mënul def lépp. Euh, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont là au Sénégal il des associations qui sont là euh, je pense que aussi il faut que euh, entreprises yi ñuy dugal loxo seen poche pour jàppale effectivement association donc euh, des personnes en situation de handicap ci cadre sensibilisation ci cadre création des entreprises moom euh, Kumba wax na ko léegi hmm, ci ñoom ñu bëri am na ñoo xam ni jàng nañu nañu seen ay lijaasa euh, ñoo gën a am na ñu bëri nga xam sax ñoo gën a compétent ñoo gën a jàng sax les personnes effectivement valides man hmm. dama yaakaar ni loolu dafa dafa am solo souvent loolu tax aussi tubaab yi ñuy raw parce que tubaab yi dañuy jël aspect boobu effectivement en en mm-hmm. te te am na benn recommandation vraiment man bi may formuler auprès des autorités mm-hmm. cest à de handicap il faut ñu koy inculquer déjà xale yi pas ay primaire sax mais prénatal puis euh, maternel waaw mm-hmm. ñu leen di inculquer effectivement Les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes comme vous. Normal. Hmm? Donc aussi, mu leen di mën a di voilà comme ki nga xam ni euh, dafa dafa gumba mu bëgg a traversé tali. Mhm. waaw systématiquement nga ñëw nga jàpp loxo bi jàppale ko mu traversé. Mhm. Euh, ñu am ñoom ki nga xam ne dafa yore otoma mu mën a am fu muy gaaree mhm. euh, les rampes tous ces. Euh, problème la yooyu ñu mën ko jël en compte mais tel ko inculqué vraiment pour man xale yi ça fait ñu màggale je pense loolu day renforcer effectivement donc euh, solidarité day éviter aussi vraiment discrimination souvent ñoom loolu la ñu euh, loolu mën leen gën a gën a gën a sonal c'est-à-dire c'est la rejet boobu vraiment je pense que dañ ko war a éviter nguur gi ba mu jëg moo am responsabilité d'abord responsabilité première bi moom moo ko yore vraiment pour protéger effectivement ces personnes la ñu mën a am accès à l'éducation accès effectivement à la à la santé euh, accès effectivement aussi à l'emploi parce que loolu dafa dafa am solo euh, Kumba laa dit nit c'est pas parce que da nga handicapé da nga war a dem di talal solo n'est-ce pas donc euh, je pense que ce sont des problèmes qui sont là que autorités yi war nañ ci jël en en compte parce que aussi ñoom dañu am ay obligations n'est-ce pas dañu signer ay convention il ne faut pas signer vraiment pour les ranger dans les dans les tiroirs je pense que il faut avoir la volonté politique ndànk-ndànk ngay jéem a améliorer je pense loolu c'est important et une fois de plus aussi que entreprise yi financement normalement warul jógee tout le temps ci biti il faut mu am ay financement endogène on a de très grandes entreprises yu am xaalis bu bëri donc je pense que c'est c'est important d'aider les associations par exemple de femmes euh, en situation de handicap jàppale fédération yi n'est-ce pas pour ñu gën a mën a vraiment défendre effectivement les droits des personnes en situation de handicap et aussi euh, comme ni ma ko waxee sànq il faut que le combat c'est pas seulement au niveau national mais il faut le mener au niveau régional international waaw jibi ñu jël kii allo salaamaaleykum. mais damay dellu si waat tuuti mais jibi waaw. Ah. ji bi man man am na fenn foo xam ne il faut que am na ñoo xam ne ci ñun lay commencé ba pare. Hmm. parce que handicapé bi il faut pas nga nekk ci net bi mel ni un gueux. Hmm. da nga warul di sol man damay sol sama costume di sol sama grand bi ba pare di yore sama kaan. mais problème ndax comme ni nga ko waxee munoo dox ci mbedd mi yore sa kaan parce que li la nga yore sa kaan blanche taxaw ci mbedd bi. Hmm. Eh, bu ngay jàll doo mun a jàll da ngay jàll kaan parce que les les gens sax xamuñu fii nii. Mm. te loolu aussi dafa waroon télévision yeeg rajo yi dañuy war a jàppale ci loolu xam ne handicapé mm. war na mën a dox ci mbedd bi dem fu ko neex mm. te fekk kenn yóbbaale wu ko boole kaak kumba boobu maa maa koy gërëm di leen bravo les femmes bravo les femmes bravo les femmes <laughs> kàddu mu ngi def benn liggéey bu rafet rafet rafet boo xam ne que léegi kumba kumba xadibaa euh, ñëw na fekk ko fa moom kumba boobu ñoom Seydou mu Ndiaye day ñe dégg ñëw ñëw nañu jàpp si ak fédération mu bees bi mm-hmm. Moussa Thiaré mm-hmm. vraiment jàmbaar la góor la ah vraiment li mu jàng ci làmb Cissé mm-hmm. jàng ko ci yàlla def naa ni il faut réussir mm-hmm. mais il a un problème de moyen mm-hmm. parce que fédération bi de état bi jàppale bu ko def mais parce que il a des moyens parce que il faut que affaire bi aussi qui connaît une bonne gestion ci ñun ñun ci association aussi ñu am ay bonne gestion mais faut pas que lu ñu jàppale lu ñu dimbale rek ngeen benn nit féetewoo ko wala ay nit féetewoo ko il faut que ça cesse il faut que qu'on se développe il faut mhm. a beaucoup de droits yoo xam ne dañu ko war a mhm. voilà waaw je pense que. waaw parce que yéen a ngi wax ci projet bi aussi. plaido plaidoyer xam nga bu ñuy wax plaidoyer décideurs yi lay concerné. lu ci ëpp. Euh, ndax am yéen aussi yéen a ngi travailler avec les collectivités locales. Mhm. Euh, pour pour mën a ñoom it ñu parce que nag. Euh, sax Kumba. peut-être yaa ngi ko doon wax sànq mais dañ doon seetlu quand ne ne euh, personne vivant avec un handicap daan nañ leen dugal ci yenn kii euh, institutions yi comme ay conseil économique ak yooyu. dama xamul ndax ba léegi c'est dafa dafa am am ngeen fa ay membres. donc euh, parce que moment dafa mel ni Yatma aussi am na fu mu. waaw Yatma mu ngi foofu. donc di wax ne rek sànq dafa am benn question bu ma rëcc tuuti mooy ñi nga xam ne dañuy dem ba di tàllal seen loxo si di tali bi. Ah. les jigéen ñi ëpp si nag. donc femmes yooyu ngay gis noonu du seen sago bu ñu demee ba tàllal loxo ci mbedd mi rek amuñu lu leen gënal parce que ku amul éducation amoo formation amoo financement amoo accès à la terre tu es obligé nga dem tàllal sa loxo si mbedd mi du lu leen gënal koo si wéetal mu ne la gënaluma te nit ki nag bu amul lu ko gënal la fa sës sës rek lay def te am na ñoo xam ne seen ngor la ñuy demee bëgguñu chaque jour di ñaan seeni i parents seeni seen i frères wala dëkk ak mbedd mi di ñaan mënul nekk parce que ñoom dañoo dañoo dañoo kii daal dañu maanaam amul lu ñu lu ñu def amuñu pexe moo tax ñu def loolu euh, beneen bi mooy tey gis nga loi bi ngay gis ni amul article booy lire wala chapitre booy liir ñu tudd fa état te tudduñu les collectivité territoriales ñoom dañ am benn part de responsabilité bu mag xam nga gouverner euh, booy gouverner collectivité bi da ngay mel ni ku yor gouvernement bu mag bi parce que foofu mooy assemblée locale bi foofu la ñuy jëlee yenn décisions yi foofu la ñuy defee yenn yi donc organe bi nga xamante ne mooy la organe délibérant bu amul volonté ba tey euh, euh, organe délibérant bi su proposé dem conseil municipal wax la muy wax ba pare jox ko la la l' organe exécutif su amul volonté da koy xëccaat tiroir bi teg ko fa noonu la état mel même su fekkee ne assemblée national vote nañ dara def ko jox ko état état war a jàllale wala mu signé mi décret bi jàll bu amul volonté du dem léegi nag ñun en tant que organisation ñun ñoo war a jóg ne leen nag maintenant. mais est-ce que seen ñooñ ñi ngeen di am ci conseil économique wala HCT ñooñu ñu ngi leen di représenter dignement parce que bu fekkee ne ñoom ñu ngi def seen rôle aussi euh, li taggatéem bi ci loi bi war nañ koy exposer tout le temps. pour xam la benn lam kese du yëngu te yaat ma kese doyul. yar ma kese doyul moo tax defoon dama defoon benn sortie benn panel ci élection législative bi bu jege see ma ne euh, la place des femmes handicapées au niveau du de l'Assemblée nationale thème boobu laa jëloon mais bi ñu jëlee thème boobu pour ñoom ay dañuy ñëw pour profiter mais dañ doon alerter ne leen ñun il est temps que ñu am ay représentants biir assemblée nationale parce que foofu la lépp di xewee tey peut-être Yatma am na volonté bi mun na dem wax mais peut-être Yatma kese kese ba amul beneen ñeneen ñu ko accompagner gunge ko wala ñu fa nekkal pour mu euh, attan pour mu ak pour mu egg fa mu war a egg day xaw a métti trop si moom benn nit kese du yëngu c'est que état moo war a xam ne ñii loi loi moo leen moo leen may lii yoon moo leen ko may kon man tamit il faut ma def li ma war ak ñoom du du du yat ma du nekk am fa représentant man conseillère municipale la commune ba ma dëkk mais parfois ma dugal projet demande personne handicapée mu leer ma ne lii ci wàllu éducation la appareillage wala leneen mais day taggatémbe dafay nekk un an deux ans da mujj sax gedd noonu la état mel état lii nga xamante ne mooy RADDHO teg ko muy projet bi yaakaar naa bu ñuy ak programme yi nga xam ne war na ci am si dama si liir si projet bi loo xamante ne moo ma gën a atterrir ak euh, attirer sama sama kii mooy euh, yi ñuy def VAD yi ñuy def proximité visite de proximité def ay sensibilisation gis nga proximité dafa am solo si looy gis état xam nga lu tax muy am problème parce que bu jëlee ministère wala direction général def ko directeur dafa bëgg pour mu egg moom fa munta egg mu di fa taataan ay bëgg-bëgg wala ay ay soxlay askan indil ko ko moom état mu mun ci am saafara mm-hmm. noonu la mel donc kon ñun eh, projet bi ni mu ñëwee dañ koy rafetlu bu baax a baax macha allah mm-hmm. parce que proximité bi mu si boole sensibilisation bi mu si boole plaidoyer bi mu si boole eh, def ay ay causerie yi mu si boole mm-hmm. day dem au fond de de la banlieue fi nga xamante ne ñoom sax xamuñu lan mooy loi d'orientation mu xamal leen loi d'orientation am ñoo xam ne xamuñu sax lan mooy personne handicapée bi ñu wax ko yow yaay kan donc loolu dafa am solo ci projet bi mhm. ji bi sànq ko doon euh, bëgg a laaj ci wàllu plaide euh, li ngeen xam ne mooy euh, collectivité territoriale yi ndax am inséré ngeen ci da nga leen boole ci pro programme beeg yooyu ndax ñoom tam dañuy da nga leen di sensibiliser waale wala en fait da leen bëgg a ci projet bi pour ñu mën ñoom it xam ne loi bi dafa jël en compte personne vivant avec un handicap te ñoom tam dañ bokk si ñu ko war a appliquer. waaw euh, comme nu ma ko waxee sànq rek euh, projet bu ñu doon euh, gérer en deux mille deux mille quinze fépp fu ñu mënta dem ci biir Sénégal ñuy rencontrer gouverneur dinañu rencontrer maire dinañu rencontrer conseil départemental mm-hmm. pour expliquer leen donc suñu objectif bu projet jafe-jafe yi nga xam ni donc les personnes en situation de handicap ñu koy jànkonteel mm-hmm. donc euh, <clears throat> dinañ continuer dans cette même effectivement lancée euh, parce que kii euh, Kumba wax na ko léegi-léegi ñoom dañu am aussi obligation ci loi application bu loi d'orientation sociale je pense que projet bi sax ñoom dañ ko je pense ils vont bien l'accueillir parce que on vient en en donc loolu euh, à notre niveau amul benn problème ñun duñu exclure kenn dañuy inclure ñëpp vraiment pour le bien-être bien en tout cas pour l'intérêt donc des personnes en situation de euh, de handicap euh, effectivement Sénégal du Dakar kese euh, financement justement balaa ñu jëm ci région yi. est Dakar est-ce que Pikine rek ngeen ciblé wala ci. non ci banlieue bi banlieue banlieue bu Dakar waaw. di ngeen fa amal ay activités dinañ fa dérouler ay activités donc euh, tey la ñu commencé sax donc euh, suñu benn atelier de renforcement de capacité fële mairie bu Pikine dinañ ko def ci yenn localité yi ensuite donc. Euh, ñu ngi wax sa ay série d' aussi pour gën a conscientiser. waaw waaw parce que émission yi dafa dafa am solo. Kumba wax na ko. xamuñu dara ci handicap. pour ñoom euh, une personne en situation de handicap amul droit. pour ñoom ñooñu duñu ay nit. n'est-ce pas yooyu yëpp dafa am solo moo tax ñun déjà commencé nañu bind benn guide. guide boobu c'est effectivement day nekk non seulement guide de sensibilisation. day nekk aussi guide de plaidoyer mais koy simplifier nga xam ni ki nga xam ne yooyu yëpp dafa am solo moo tax ñun déjà commencé nañu bind benn guide. guide boobu c'est effectivement day nekk non seulement guide de sensibilisation. dafay nekk aussi guide de plaidoyer mais dañ koy simplifier nga xam ni ki nga xam ni jàng nga sax tuuti mën nga jëfandikoo donc guide boobu aussi pour mun a xam donc say say droit xam par exemple lan mooy carte des chances xam exemple procédures yi ainsi de suite donc yaakaar ni loolu c'est c'est très important. ci région yi ci ci ci région yi euh, on va. même activité même même même yi la ñuy euh, dérouler donc euh, on va travailler avec les. élus locaux euh, travailler en tout cas avec euh, les organes donc euh, euh, décon déconcentrés donc du de l'État. Mm-hmm. Voilà, donc euh, pour voir un peu vraiment comment on peut travailler pour que effectivement droit wu les handicapés. Mm-hmm. ñu mën leen respecter mm-hmm. progressivement. mais est-ce que des durée bi du gàtt pour ngeen mën a mener seen activité yëpp. waaw surtout sax ak cible bi nga xam ne. <coughs> il faut que même euh, des activités yu bari pour ñoom ñu gën a am conscience aussi. waaw waaw waaw un an un moom vraiment euh, dafay dafay ndaw mais xam nga moo taxoon ma ne la sànq euh, benn nit kese mënul régler situation mu handicapé yi. Mm-hmm. benn organisation kese mënul regle situation de handicap yi. Mm-hmm. moo taxoon sànq mooy lancer un appel un peu ci euh, les entreprises. Mm-hmm. mi mun a jàppale aussi donc euh, ces associations là ils font un travail extraordinaire mm-hmm. n'est-ce pas donc day nekk après genre complémentarité euh, bu ñëpp dorondee vraiment je pense que mm-hmm. ci les situations bi di gën a vraiment améliorer wu mm-hmm. que ça soit au niveau au niveau local au niveau national aussi au niveau donc euh, régional c'est-à-dire que euh, en Afrique. Nous continuer. Et aussi, euh, nous, on va tout faire aussi pour que euh, association euh, locale yi. ñu mën a am aussi partenariat ak yeneen organisation yi xam ne ñi ci continent bi. pour que ñu mën a am benn synergie. waaw échange voir un peu vraiment comment mieux défendre donc la situation des personnes vraiment en situation de handicap particulièrement particulièrement les femmes mm-hmm. Kumba euh, euh, yenn euh, projet bi defe naa ne pour yéen lañ ko fi teg mais est-ce que tamit di ngeen yéen fexe ba femmes aussi bu ñu leen jàngalee li nga xam ne moo am solo ci wàllu projet bi ngeen fexe aussi appliquer ko bañ a toog rek di xaar aussi yenn ONG yi di leen jàppale mais aussi seen fédération di def ay action xam naa du si ñàkk moom mais pour ngeen appli appuyer ko pour yéen seen bopp sax ngeen doxal mbir mi ci seen bopp parce que récemment gisoon naa benn marche bu jeune jeunes yi handicap yi doon def mhm. mooy ñu nekk ci dañuy def formation bu ñu génnee du ñu am liggéey ak mhm. yooyu mhm. Euh, mu nekkoon image yi daw yaram parce que gis nañ après dañ leen gazé ñenn ñu jàpp leen donc est-ce que yéen aussi euh, yéen a ngi bàyyi xel ne projet yi bu jeexee war ngeen mën a fexe ut ay yeneen bailleur wala yeneen partenaire yu leen accompagner pour mu continuer donc euh, merci li ma wax sànq rek ma ne la manque de volonté politique la état am donc dama lay wax projet bi bi mu ñëwee Pikine tey ñu fay def renforcement de capacité euh, ci sélection bi présidente Ndeye Daga dafa woo tous les leaders tous les responsables muy présidente Rufisque muy présidente Guédiawaye muy présidente Pikine muy ñi nga xamante ne ñooy liggéey ak comité des femmes les leaders yi nga xamante ne ay porteurs de voix te suñu paree war nañu mën a euh, décentraliser li ñu fi jàng ci seen ay membres pairs ñooñu la indi pour ñu tàggat leen tey mm. te du fi yam mooy solos euh, bi nga xamante ne projet bi am na ko parce que bu doon projet boo xamante ne projet wayaa wayaa la dañuy ñëw rek jël quelques membre rek indi leen mm. ñu ñëw participer bu ñu paree dem mais daf ñu leer na ñi nga xam ne sélectionné nañ leen suñu paree ñoom ñooy nekk les relais yi nga xam ne mm. ñooy dem à la base sensibiliser waat nit ñi waxtaan ak ñoom ci projet bi ak impact bu mu nar a am beneen bi mooy euh, li nga xamante ne laaj nga ma ko léegi-léegi mooy euh, xaw na ma rëcc tuuti. waaw mooy euh, peut-être yéen après ndaxam projet yi mel ni jeexee. donc xam nga lan mooy saafara problème mu handicapé yi. Mm-hmm. décret d'application de la loi d'orientation. parce que tey jii su ñu ñëwee ne société bii kat privé la mais état nee na 15 pour cent wala 2 pour cent na ko réserver personne handicapée tu es obligé nga def ko kon ki nga xam ne jàng na ba am ay diplôme war a am liggéey. forcément bu génnee day liggéey xam na à qui s'adresser la parole. mais xam nga état tam yaa gën a jël ay décisions di boo xoolee sax kaawu denrée de première nécessité yeeg lois baa ngi nii. ay loi la mais kenn appliqué wu ko est-ce que tam yéen parfois doo leen yëglu parce que te dafa mel ni réew mi boo dul kaas di wax tout le temps kenn du la déglu xam nga nee nañ réew buy dox yaa ngi koy nattee ci ñu gën a néew doole mhm. gis nga keroog handicapé bi ñu génnee lan la def xam nga neen dafa da dafa daw sa yaram mhm. état day éviter loolu te ñoom ay doomu aadama lañ comme ñëpp sa yaay jàngal fayal la nga jàng école ba mën ba am sa diplôme soo génnee yow da nga war a liggéey par A ou par B mm-hmm. état mun na mun na mun na loolu mm-hmm. état pour mu def dara lu facile la comme bonjour si moom tout à su engagé woo rek wala mu am volonté rek da kay def mm-hmm. su nee tey tey tey handicapé yi ci seen yi am diplôme yëpp doon manifester dañuy xëy suba suba ñu xëy kon loolu amul amul amul lu ma si xel ñaar yooyu. Hmm. ñun na décret d' bi wàcc rek. su décret d' application bi wàccee li ci des ñun xam nañ nan lañ jël de hmm. defe naa ne am na solo xanaa rek waxtu bi <laughs> daanaka dab nañu ñu bàyyi la rek nga wax mot de la fin bi euh, ak lan nga yaakaar ne peut bu buñ ko ci defee dina mën a améliorer condition de vie ak droits humains personnes vivantes surtout femmes yi nga xam ne. parfois dañuy ñu si bëri dañuy bëgg di dimbali seen njaboot yi. Euh, nekk ci situation yu métti yoo xam ne peut dina dina jafe pour ñu pour ñu mën ko def. donc euh, di la remercier vraiment ci invitation bi kontaan naa bu baax di remercier le partenaire financier technique et financier mais di remercier ki nga xamante ne moo ma may occasion bi ma ñëwee fii ba def émission bi muy sama présidente national Ndeye Dagg di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk ay fanam yàlla sàmm ko aar ko ko moom njabootam. di ñaanal way laago yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal wërngal këpp di wax ne ñun benn benn wax kàddu rek la ñu am mooy suñu loi d'orientation bi décret d'application bi état génnee ko parce nag il est temps parce nit ki tamit boo nee du ko topp fa ngeen jëm a sori. Laradou ci lëkkaloo ak collectif des de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may seen émission àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru jàpp ñeenti waxtu wala société civile bu euh, mën ci doon def ni rado def ñëw ànd ci xeex boobu nga xamante xeex la sax mais plaidoyer lay doon envers état ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les concernés pour que suñu décret d'application loi d'orientation ñu mën ko génne euh, euh, état signé euh, aussi ñi jàng ba am seen i diplôme mën a am ci à la formation professionnelle pour mën a am financement ñu de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may bi émission mën 628 05 05 88 628 05 05 àllarba ji 29 mars 15h 16h ci Afia FM 93.0. Djibi le mot de la fin ak. waaw ba. ak suite perspective projet bi. waaw fi may daaneel rek may d' abord comme Coumba lu mu ko waxee remercier Afia FM. Je pense que ça fait plus de dix ans. la RADDHO ci lëkkaloom ak collectif des femmes de la fédération euh, sénégalaise de personnes handicapées moo leen di may euh, seen émission àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru euh, mars bi ñetti jàpp ñeenti waxtu ci Afia FM 93.0 Fatou Ndiaye dina ci dalal monsieur Djibi Baldé bokk ci RADDHO ak benn membre de la fédération sénégalaise de personnes handicapées émission bu mi ngi renforcement de ces personnes vulnérables léegi daal euh, comme en guise de conclusion je euh, pense que plaidoyer bi daal mooy vraiment euh, état bi loi li xaar ah, peut-être ce que ah, loi d'application sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may bile émission mën ngeen ci bokk bu ngeen defee 88 628 05 05 88 628 05 donc en guise de perspective waaw ñu ngi continuer ñetti fan yi ñu ngi Pikine pour renforcer effectivement donc les associations des femmes euh, de la de la banlieue dina am ay causeries effectivement de de proximité dinañ continuer effectivement donc euh, la sensibilisation donc euh, au niveau de Dakar euh, ainsi de suite euh, ak ci yeneen donc région yi nga xam ni donc lii nga xam ni projet bi moom ñoom la ciblé à savoir Ziguinchor Sédhiou Kolda donc je pense que loolu la la collaboration en tout cas va continuer on va continuer à collaborer avec les femmes on va continuer à travailler avec les femmes en situation de handicap mm-hmm. et aussi une fois de plus maa ngi ñaan entreprise yi ñi nga xam ne am nañu moyen vraiment ñu venir en appui à l'État à travers vraiment donc euh, le financement donc des associations des en situation de de handicap. def euh, euh, euh, naa ne kàddu gi am na solo ñu koy jëfal moom Djibril Balde nekk responsable projet bu personne vulnérable ca RADDHO di jaajëfal également madame Koumba Ndiaye nekk bokk ci comité des des femmes bi nekk ci fédération bi yëm ëmb personnes yi vivent avec un handicap ñu ko doon jaajëfal bu baax euh, ci ñi euh, nga xam ne moo di euh, dalal bi comme ni mu ko waxee rek jibi moom suñu partenaire de longue date la ñuy jaajëfal également ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci plateforme digitale di Mamadou Keita di jaajëfal directrice Pendagan Sougou di leen wax ne Afia dina dikkat ak yeneen ci yeneen i waxtaan yu gën a yaatu ñeel nag ñi nga xam ne Euh, ci askan wi lañu bokk également euh, di comme ni ñu koy baax di def rek chaque mardi euh, seen émission handicap yi di bu baax ci déglu bi. L'arado ci lëkkaloom ak collectif des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées moo leen di may seen émission àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñett jàpp ñeenti waxtu ci association de personnes